auzu billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim wa ansiraara xalqa wa rasaaya wa jinn wa seytaan wa bala maa bala iyo maha amradi wa biri daatan haadiro ahradi barke maam Cheikh Ibrahima Fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne ñooy topp seen site bu mag bii di Jazboul Mouride ci seen jotaay bu mag bii di jotaay Zikroulah émission Zikroulah tey émission Zikroulah ñëwaat na ci beneen mbokkum taalibe muy Serigne Baye Fall Kene Serigne Baye Fall Kene yaakaar naa ne jërëtul ñu koy présenté ndax mbokki taalib yëpp min nañ ko bu baax a baax ci yëngatoom ak euh, ni muy dundalee yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall ci turu yàlla wi waaye tamit di ko sikaree ni nga xamante ni tey jii noonu la ko euh, murid yëpp bëggee sëñ Baye Fall kenn nag tey moom lañ dalal tey ci seen émission Zikroulah xam naa ne bala ñoo tàmbalee dañ koy jox mu nuyoo su ko defee mu daal di yëkkati turu yàlla wi euh, su ko defee dañuy wax naan saxaar bu jëwee gaar day korne kon mu yëkkati turu yàlla wi su ko defee mbokki bi nga xam ne xamaguñ kan moy Baye Fall kenn ñu mëna dégg baat bi sëñ Baye Fall ñi ngi lay nuyu dila ziar on su billahi minas seytaani degi barke sëñ Bamba barke mam Cheikh baye Fall barke sëñ Modou Fall benna noo ngi ziaré baax baax su bokki talibé yi ñuy bokkal jotaay bi di ziaré wa Jazbul Mouride di ñaanal tawféex ak gërem mom mam Cheikh baye Fall ñu bokk yaakaar comme ñu ko wax rek saxaar nag dana bu jóob gaar korne kon nu fas yéene tudd yàlla barke suñu taw doole seera fan la baax mu dina la illa allah la ilaha illallah faal la ilaha illa allah la ilaha illallah faal la ilaha illallah faal lamp faal baabul muridina jam yaa leen faal baabul muridina jam yaa la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha faal njaga yaaram Cheikh Ibra danu xamuloon maam serafaal góor ñi doo seeni morom ku def lu baax faal am lu baax ku def leneen faal am leneen woy bàmmeel ñu loo la dem lool ndeke suuf yaa ni mujjee laa ilaha illallah laa ilaha illallah ilaha illallah laa ilaha faal njaga yaar maam serafaal macha ci tur am solo Euh, tur yàlla wu wér nag nga yëkkati ndax euh, tur yàlla wi bari na ñoo xamante ni ñu ngi koy yëkkati mm-hmm. waaye ni nga koy yëkkatee mm-hmm. xëy na pas-pas bi ñu ci àndal ak yéene ji mm-hmm. ak dëggu gi bu jógee ci xool rek ci xool lay delluwaat sëñ Baye Fall kon ñu tàmbali waxtaan bi sëñ Baye Fall kañ la door tur yàlla wi tur yàlla wi waaw noo ngi seer baax baax tur yàlla bi moom su may mën la suñ borom dogal na ba nu xamee ko ba léegi noo ngi ci ndax dañoo juddu fekk suñuy maam doon ko def nu màgg ci loolu yaru ci loolu di ko def topp ko nag booba léegi mooy suñu lépp nag su ma yëgoon daal ba nu xàmmee ko ba léegi ñoo ci ci tur yàlla bi waaw. sëñ Baye Fall ndax am na euh, koo xam ne moom la daan roy. waaw bu baax kooku ma daan roy na la tudd. bu baax a baax maanaam ba may door. Mhm. maa ngi tàmbali ci Baye Masele Thiam. Baye Masele Thiam. moom laa tàmbale woon ak. taalibe bépp sëriñ am bi ndaw bu ndax bàcc jéey. sëñ bàcc jéey sëñ bàcc jéey. yalla sama borom yalla yok ay leer amiin amiin barke moom Cheikh Ibrahima Fall tax ci barkeem amiin amiin ci ñom la dooree mhm. tur yalla di ko roy mhm. ñu mas ñu suñu baye bàyyi masala cham mhm. ak sëriñ bacci baye bàyyi masala moomu sax la bëgg ñu taxaw fi ndax amna benn eram bo xamne mom nga dooree wa bu baax a baax bu baaxa baax bu baaxa baax bu baaxa baax ndax japp nga erbi bi waaw er bi jàpp waaw jàpp ko kay japp na ko <laughs> la ilaha illallah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 ilaalaw laa ilaaha illallaay faal Cheikh Baye Góor yaa mat boroom laa ilaaha illallaay faal ilaalaw dunu dëpp faal dunu daay nun de dunu to tigana u faal jaga yaar jaajëf bàyyi ma sele bàyyi cham sele waaw saan ku la dégg ni koy ke xamne ko ko ko deg nga dëgg la dëgg la lan mo la duggal ci ci ci ci ci mom pour nga ma yeg yeg bi nga am ci di waaw bàyyi ma sele waaw ndax ak tamit kagn nga door ci roy bàyyi ma cham waaw bàyyi ma su may 84 la ko tambal roy 84 waaw bobu gamu bu ma san jot ndiarem da danaan ñew ke sëñ Cheikh Modou benda booba sëñ Cheikh Modou benda mhm. moom sëñ Modou Fall benda mo tok khalifa mhm. bu ñewé di sikar air bobu noonu mhm. nak ma don tu tank ndax dama yegg top sikar ma don tu tank diko top diko deglu diko deglu di ko déglu ma koy def dara ko def ba sëñ Cheikh Modou benda dox sax bayna ko may ma sa dom ji ndax dafa mëna tuddu yalla yàlla te booba tu tank la booba suma yero micro di sikar damay lox damay lox bay daanoo waaye su ma ko mosaan yëkkati maanaam sëñ bi dana wax na sama bàyyi ma sa doom ñu wax daa mën a tudd yàlla ci <laughs> ci sëñ sëñ sëñ Bassirou Dieye sëñ mhm. eh, ki nga doon wax waaw waaw waaw sëñ Bàcc Dieye sëñ Bàcc Dieye ah. moom tamit mhm. tudd nga ko léegi waaw eh, dafa mel ne kon moom mhm. eh, dafa mel ne kon boo demee ba tàmbalee dund sikar lool lool kon dafa mel ne moom ay eeram nga gënoon a wallaay ba Cheikh Ibrahima Fall moom tamit ban yëg-yëg nga amoon ci moom <laughs> tamit ba jël eeram yooyu ba tey boo ko sikaree tey uh-huh. ñu bari seen xel day dem ci uh-huh. ci moom Baye Bàcc suñu borom daan dogal ñuy dajee kër Baye Cheikh Ndaw ci sëriñ Amdi Ndaw bu ñëwee sëriñ bi di ko sikarloo bala moo tàmbali dama ñëw tàmbali sikar di roy Baye Masele su ma ko roy ba ci digg bi dama koy bàyyi continuer eeram xam ne bu ko rek moo maanaam bala ma sikar day jooy ba sonn ndax roy gi ma koy roy ak bëgg gi mu ko bëgg loolu dama ko daan jox nag barke maam Cheikh Fall addi ju ñu ko masaan jox dama koy jox na roy gi ma ko daan roy ma ko loolu nag dégg ko nga xam ne njaareem toll nay jamono fu ma yëkkatee xaaj guddi donte daa tëdd day ñëw wóor na Cheikh Ibrahima Fall dama ci ñaanal di ma ñaax di ma dolli ba tey jii wax dëgg yàlla noo ngi sant maam Cheikh Fall baax baax noo ngi a jamono boobu ci ban air mm-hmm. ban air nga ko njëkk nga ko njëkk royee waaw waaw waaw loolu loolu ñooñu tamit mm-hmm. boo gisee ma bëgg mbokki taalibe yi mm. ñii seetaan mm. ma bëgg ñu fàttalikuwaat mm. jëmb jooja waaw dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan suñ ko su ndax jotaay jotaay sikkur laa la waaw dëgg la barke Mame Cheikh kon waxtaan wi dañuy waxtaan waaye sikkar si mooy la mbokki taalibe yi moom waaw moom lañ gën a yëkk moom daal su may wane la kii di Baye ma sele Baye mut jeng Baye mut jeng Baye bàcc jéey mm-hmm. suñu jëriñ Udoon Njaay nag moom wax dëgg yàlla loolu am ci sikkar dañ koy sante Udoon Njaay njaarim wax dëgg yàlla mm-hmm. Baye bàcc mm-hmm. daanaa ko roy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 dëgg la mujj na am ay aires boppam. Mhm. ndax Baye Fall bi mu tàmbalee aires boppam yi ban aire la njëkk a euh, ba ak kañ la maam kañ la tàmbali air aire boppam ginnaaw bu mu jógee ci ñi mu doon roy noonu. maanaam comme aire aw ak yooyu. aire aw waaw bari na wax yàlla aire yi moom mhm. bari na ndax suñu borom dafa dogal. Mhm. dañuy yëkkati sikar boo xam day ànd xiin dañuy yëkkati sikar boo xam day ànd ak gars yi aw waaw waaye sama aire yi bopp wax dëgg yàlla bari na bari na wax dëgg yàlla bari na bari na aéro aw bi sax laa bëggoon. Mhm. mbokki taalibe comme ñi ngi ci ginnaaw. Mhm. ñu ñu xool tuuti ba xam. Mhm. waaw barke Cheikh Fall. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah. laa ilaaha illallaah. Maam Cheikh laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah. yaram yàgg fee faal ci teena sëriñ Cheikh jëmb yàgg fee la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله ku dëggal dugg nangum jaam te dis gor tukki fi lool bëgg fa bari lool fas fa dootul fecci du dara looy moom du dara lay moom am di mu soo kenn nga la ilaha illallah la ilaha illallah doonu reef fal mi ngi jam ci puyawa la ilaha illallah la ilaha illallah adi maam Seera Fall jërëjëf suñu Baye Fall loolu mooy sikkaru aw bi waaw moom euh, da nga am kuréel boo xam ne ñoom ñoo lay aw waaw waaw kuréel boo xam ne ñoom da ngeen répété wala Baye Fall moom day yëkkati rek gars yi daal di waaw moom nag suñu borom dafa dogal ak ca dogalamee ci barki maam Cheikh Fall sëñ Modou Fall benn ndax loolu am ci tur yàlla rek ñu ngi koy jaajëfal Cheikh Mortala Modou benn yal na sama borom yàlla yokk ay leeram répété ma wax ko def <laughs> ndax daanaka kuréel gi ñun benn famille lan ñu ci ne ñii samay jarbaat la ñii samay doom lan wax dëgg yàlla su borom daal dogal na ne répété moom duñ ko def si kasi lu mu lu mu tartarit su ma newoon ba ci biir sikkat yi gëdd gëdd yëkkati fu mu yëkkati ñoom ñu fekk ma waaw loolu la Cheikh Rafal dogal <laughs> loolu la Cheikh Rafal dogal la dégg yi daal mhm. waaw njëkk a euh, la njëkk a fanaanee baas yëg mhm. mhm. a fanaanee baas yëg ne tey Baye Fall loolu nga ko tàmbalee quartier bu quartier Thierno Kandji quartier fala laa engagé programme yo fay ma 350. juróom-ñaar ci ma wut nek ci auto yi raxas ba am 1000 francs jëlee ko essence sol ko ci auto bi ma <laughs> ci sol ko ci auto bi ma yoron nga xam auto bi suma ko koy dawal su ma duggee montagne bi dama ko def PMR ba fay ko ba ba man wàcc montagne ma talat ñu dem. 350 <laughs> mu njëkk fay ci ay jang barki Cheikh rafal te jang métier mi yi boobu métier mi. ina mm-hmm. lay laay ba sept ci suba. kii ci sama ginnaaw njaga bàyyi fal mi dóor ak lu may def naa ko ci tur yàlla dóor ak móoru mi sax di nga toll dinaa daanaa toll dimension yoo xamante ni maanaam bu may tudd yàlla dama amee xadar jox mi dama ko daan dóor ba mu toog ci suuf barki Cheikh Ibrahima Fall <laughs> wala suñu ci baax ceenookaa ñu laa ko njëkkee defee mu lay ba tey jii baas bi maa ko war a fanaane mu laa ko njëkkee defee waaw waaye nag lu lu lu jiitu loolu daanaa dem ci ay jàng dem di jang dana yar sama oto dawal ba yem ci dekk ay jang am fa ma ma ma sumi pantalon bima yoron sol ab blok dem ci jangay toj jang yam suur camion ba ma ma ma ma ma jàll non <laughs> nga continuer noonu ko def. non dana ko def. ko da tru yalla yu mom dafa nek ci yow. wa dafa nek wax yalla wa wa dama ko dund ba pare. ngi wax léegi ci taamulement bi ne ba nga doné tout tank ba léegi. wallahi bak Seera Fall yaa koy dund tay tamit ñi nga ñi ngi ci ñi ngi ci fekk ci mm-hmm. ñu ñu di ñu diko ñu diko doxal. Mm-hmm. da nga ñew dangaa ñëw ñu bàyyi laa moom. Mhm. nga àggale ko tamit foo kawe mhm. jot tamit. Mhm. moo tax damay damay profité ma laajaale Baye Fall. sikaru ni mu gisee sikaru démb ak sikaru tey. waaw sikaru démb mag ña wax dëgg fan teguñ yàlla wi. ku ci mel ni Baye wax dëgg yàlla ñun àggaguñ foofa. àggaguñ foofa ndax sikaru démb ak sikaru tey wax dëgg yàlla bokkuñu ndax bu fekkee ne jot gi. bu njëkk ci mag ñi rek la ëppoon ndax ñu saa su ñu ngi tafoon ci sëriñ bi rek sëriñ bi waaw seen lépp sëriñ bi la mhm. Mhm. bëgguñu dara lu dul sëriñ bi rek mhm. nun nag jamono mooy dox ba ko ci ne yaa ngi ci sikar si ma yaa ngi koy boole ak leneen waaye mag ñi ci nekkoon boolewuñu ko ak leneen waaw wax dëgg yàlla boolewuñu ko ak leneen léegi bokki taali bi nga xam ne ñoom dañuy dund sikar boo xoolee bari na loolu léegi loolu Baye Fall lan la leen di ñaax ñi nga dund sikar mm-hmm. te it bëgg sikar it ñeneen ñu doroy Baay Faal mm-hmm. ñu doroy ñeneen ñu mel ni moom mm-hmm. ñooñu lan leen di soññ yooyu mi nga xam ne yaa leen jiitu ci liggéey waaw moom daal li ma di soññ ñi nga xam ne dama ci profité di ci sant euh, sëñ Abdou Fall bu baax waaw waaw waaw jërëjëf waaw waaw moom moom moom sama tànk sama dooma sama lépp maa ko yor sama ginnaaw loolu topp di ko def li ma ci li li li ma ci mën a xam daal mooy ñi nga xam ne dañ koy tewlu wala ñu nekk té diko def xol moy lepp xol bu rafet ko gis yéene ko jam ko gis nga ko yene jam té di nga jàppe sama nang ko nang ko jappé manam sama borom tuddu kat yalla mom ak selal gi selal gi tamit ci am solo bu baaxa baax waaw wa selal ko ci am solo bu baax a baax bala nga koy def japp ba sel mhm. dañ ko boole dara dañ ko boole dara xaan ndax tur yalla kat mhm wax na ne ma ne ma boo def na la ilaha illallah malaika yi dañuy daw ñu xëñtu sa gemeñ nee na bu ko xencoo leneen xëñtu lu tur yalla wo da da di faat kon selal gi ak sel gi da ci am solo baax baax ma ma leen di soñu di soñu sa bop lolu moy jitu bala lolu moy jitu ci tur yalla moy jitu ci tur yalla lolu moy jitu ci tur yalla ma leen di soñu rek manam bëggante gi ak jàppante gi ndax baye fa lepp sax mu doon bëggante manam maanaam tuddkat yàlla yëpp bëggante bàkki Cheikh Rafa foofu sax duggé wat mm. bay Fall nan la demee tuddu kat yalla yi waaw man waaw tuddu kat yalla yi o mak ñom manam frontière mm. wóor de Cheikh Rafa ñëpp la jaxasool mm. ndax ni ma jàppe sama man non la lay jappé té ma ngi wàcc sëñ Mour sëñ Mour Mbène xam man ni leen bëgg na lu ma bëggee amu ci kenn xaar yalla wax yàlla wax day wax li nga wax ni da danaan bëgg dama bëgg bay Fall wóor de Cheikh Rafa ñom ñom ñëpp la bëgg mm-hmm. damay tok di ñaan ci dolay Cheikh Rafa fu kenn wut tuddikat yàlla am xéewal wuna mam Cheikh Fall damay toog konyam, di ko ñaan barke Sëñ Tuubaa damay toog di ñaan mhm. ndax ñoom ñu danoo bokk bi te wolof Njaay nee ne ñi bokk teen bi ñooy laxasoo ay goj danoo bëggante danoo bëggante wax dëgg yàlla dañu bëggante bu wér a wér mhm. mhm. eh, am na benn kuréel bu lëkkale tuddikat yàlla yi eh, ndax Baye Fall xam na de amna de buñ ci yor boo xamante nu sëriñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Serif Assane Fall mooy suñu jëriñ mhm. ñu koy xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall xidmatu maam waaw mhm. daayira bi mhm. ci ndigalal sëriñ Cheikh Jëmb maanaam ci lañ ko amee turo moo ko tuddee waaw loolu moo am na Baye Fall lan la ñuy ñamalaat ci tur yi hmm? lan nañuy ñuy ñamalaat ci air yi nga xamante nii Baye Fall karmataat na ko ci xel mi rek. <laughs> sëñ Ablaye waaw moom day xanaa yaay wax rek moom noo ko bëggee rek. moom kay ginnaaw jotaay Baye Fall la daal. <laughs> moom kay duñ doyal ndax. dañoo bëgg mu saf sàpp ak sikar. ndeysaan moo tax daanaka dañuy namaat turu yàlla wi. Mhm. ban ban heure la ñu Baye Fall di mayaat ñu continué waat liggéey bi. incha allah bisimilah. ilaha ah. illallah la ilaha illallah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 Cheikh Fall ba amba ji ba muy door ba muy door ba muy door ba ñu noon du la illallah la ilaha illallah Cheikh Fall ñaane la ilaha la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 ah la ilaha illallah yàlla réew mi bamba ko moom mi réew bamba ki ko moom la ilaha illallah yàlla nit ñi Bamba leen moom jinne yi Bamba ah! yi ki leen moom la la la ilaha illallah yàlla nit ñi Bamba leen moom jinne yi Bamba yi ki leen moom la la ah! la ilaha illallah Bamba du moromam ñi Bamba du moromam ñëw ñëw ñëw ñëw la ilaha illallah babadu moromam ñi babadu moromam ñëw way la la la la la la ma sha allah mbokki taalibe yi dafa melni ne seen xol set na lol ndax ku deg Baye Fall ni muy sikkare neex na lol waye Baye Fall dafa am yu sew yo xamne léeg-léeg da ngay sikkar. Uh-huh. di ko ci di ko ci génn waale. <laughs> mooy <laughs> yooyu nag bëggoon nañ ñoo xam nan la dikkee Baye Fall. mooy comme inspiration <laughs> ah, mooy léeg nga tudd ci comme ni nga def léegi uh-huh. rek. Uh-huh. Ah, tamit am na géeju Kawsara yow yooyu noonu nga xam ne. ay wax la yoo xam ne danga nga koy njàmbaasaale ci biir te njàmbaas ku nekk xam ne. lu yàgg ci sikkar la. ndax ma mag ñi daan nañ sikkar bàmba ji ba muy door. dañ ne woon du sore. nee nañ sax bis wax nañ ko ci wetu maam Serap Fall mu ne ah doom dog boo waaw boo ñu doon xareloo benn Baye Fall du ñibbi mm-hmm. yaa ma doy dafa diis falal góor ñi ñu ñibbi mm-hmm. léegi ñu gis ne yooyu yooyu da nga ko indiwaat ci biir tur tur yàlla wi mm-hmm. di ko ci dundaale loolu nan la dikkee Baye Fall ak tamit loolu lan lan moo tax mu xalaat loolu <laughs> moom daal Fall jega bu la nëbbu tuut gi ñàkk baaxu maam Cheikh Fall bu nu jëlee toog di tudd yàlla moom day mel ni xanaa comme caméra bi bu bu nu tegal nii rek nuy wax waaye na la bu nu fi jógee maanaam mënu ci ne dara dañ ko fàtte nañ ci bàyyi xel. <laughs> maanaam jamono bi nga koy nga koy ci ci lay. barke Cheikh Rafal ci laa koy yenn saa yi ma sikkar ba pare. Mm. di ko laaj ñi laaj ñi lu ma wax. fekk ñoom ñoom ñoom daanoon na. barke sëñ Bamba. Euh, Baye Baye Fall ñaata ñaata Baye Fall ndax am na kaset. waaw am naa kaset. waaw def naa ñetti album mbokk taali bi ñuy seetaan. Mm-hmm. ñoom lu ci bëri dañ koy laaj. waaw. Mm-hmm. def naa ñetti album. am mm-hmm. na boo xam ne ci laa way maam Cheikh Rafal. nga siiw na. benn bi. ci laa woy sëñ Modou Mbenda. Mhm. benn bi defe naa ci laa woy géeju kaw sara boobu sax kay laa bëggoon nga laal ko nga laal ko. <laughs> waaw ndeysaan. <laughs> géeju kaw sara boobu laa bëggoon. waaw xam nga loolu ba mu ko laajee dafay sawar. moom ndax sëriñam di di faal. rek moo tax ma wax loolu. Mhm. di jàmbaar loolu nag ci yoon wi. Mhm. ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla guddal aw fanam. amiin amiin barke maam Cheikh Ibrahima Fall. amiin jàmbaar dëgg ñun suñu borom danoo booleeg sëriñam dafa di. ñu bëgg ko. ba tax saa bu ñu tudd yàlla sunu xel du jóg ci moom loola war ñu génne woon air boobu noonu di ko sikkar Kawsara anoon noo ko defee a serafan faal lam badon fàtte déedéet lu lay laafaan am nga war kaw am nga war ca miw mbaa ju bari lool saara mam sera faal ba doonu fàtte yooni du saayir yooni baatin lay doxe yooni du saayir yooni baatin lay doxe iqra muhammad rasulullahi jàngal yàlla xam sa mam sera faal ba doonu fàtte mam sera faal yow la ni sago mam sera faal badol fate lay lay la la Cheikh Bamba way na yonen baruma yomba lay lay la Bamba way na yonen baruma yomba lay lay la la Cheikh Amdi yow la ni Cheikh Amdi Khady Fall yow laa ni sago la ilaha illallah ndeysaan la ilaha illallah la ilaha illallah mbiri baatin lay doxee buruma yomba lay lay la dafan jiji kusara bi mooy géeju Kawsara moom bi moom bi moom mbokki taalibe yi dañ koy dañ koy kii loolu yëpp sax waaye bi moom saa yoo ko yëkkatee rek dafa am feneen fule foo leen di yóbbu. ndeysaan dafa mel ni ci géej gi kaw sore yi nga leen. wallaay bàcc Cheikh Fall wallaay. <laughs> Ah, moom maanaam air la boo xam ne daal. Ah, ah. xam naa ne ñi koy ñi koy bëggee bëri nañ lool lool lool. Baye lan lay soññ. Mhm. ñi nga xamante ni ñoo jóg ngir roy Baye Fall kenn. Mhm. yi nga xamante ni mhm. ñoo jóg ngir fa Baye Fall teg tànkam. ñu teg fa seen tànk. waaw li ma di soñ daal euh, ndaw mooy ab yar ak i teggin ndax ab yar ak i teggin mooy lépp. ko gis daf ko ni sa bop ku la mat kilifa jox ko cieur ba mu yellu la waaw baña salalu ken di deglu ndigal di baye ay tere lol dal wax dëgg yàlla sa suné sama dajé ñom lol ñoom di wax té ku ci né bo dajé ak sa jëruñ jox di tud yalla cieur ba ko ma jox na ko jox te jox ko waccu waya ndax moy lepp barki sharafal Fall jëfati manam bu dee ci kurelu Baye Fall kenn bi nga xamné Baye Fall yemul rek nii ci sikaru. Mhm. kii dafay ànd ak ay xiin. Mhm. foofu tamit bëggoon naa nga kuréel bi ñoom fan lañ nekk. kuréel bi nag ñu ngi njaarim mhm. waaye ñu ci bari dañoo féete sow waaw waaye daanaka xaaj bi dañoo féete njaarim xaaj bi nekk sow. tey ku bëggoon a jot bay Fall kenn. waaw Baye Fall kenn nan lay fexee ba. ndax déggante ak Baye Fall kenn kenn du yomb la wala lu jafe la. déedéet jafewul de Fall yaram jafewul de ndax ñun ay dong rek lan waaye. dari li dari sunu suñu métier ñu koy def muy tur muy muy tur yalla ni te bëgg na diko def da ci am adiya di ci joxe adiya ndax nu fu fu ne rek adiya do fu bàyyi jot gi bàyyi faal kenn jafewul nak ndax bo jaaree ci yoon wi rek di nga jot bàyyi faal kenn ndax lu ci melni walu programme yi nu yëngu am na suñu mbokki talib wax moko yor danaka bo soxla programme mo ngoy waxal danaka man fi tur yalla yi fu mo di cigarette amu ci den dudut ñu woo ma ne ma war ngaa ci kër barab sàngam waaw dafa koy jokkoon waaw dafa am koy jokkoon ñu koy sabab jarbaat Modou Faye Modou Faye mhm. waaw moom moo yor wàllu wàllu jàng bi ak yooyu mhm, mais ki nga xam ne mooy ménagère bu mag bi nga xam ne mooy lijjanti programme yi télé yi ak mhm. bagage yi Omar Nayel lañ koy wax Omar Nayel sama xarit waaw léegi Baye Fall tamit ci wàllum wolofal yi mhm. wolofal léeg-léeg muy si kar mu yaa mu def ci ay wolofal mhm. yu am solo ba ci kaset mi sax bëri na ci mhm. loolu tamit wolofal yooyu Baye Fall da koy faral di def wala jàng mi jàng comme ni ma la ko waxoon rek wër na ko noonu <laughs> lay dikk ci jëmm ji ma waaye amu ci lenn loo xam ne daal dañuy toog di ko répété wala ki lu lu luñ ci kii moom daal xam naa loolu Habib sama jarbaat bi topp sama yaay di ko naan yëg-yëg la yëg-yëg la mu doon baat boo xam maam Cheikh mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nañ ne maam Cheikh Fall ku fonkoon tur yàlla wallaahi barke Cheikh Fall ba sa am daaj yoo xam ne ci kanam lañ ko daan yëkkatee lu ci mel ne bi ñuy wax dégg daaj yooyu yëpp nee nañ ci kanamam lañ ko daan ñoo yëpp ci kanam lañ ko daan lañ ko daan lañ ko daan yëkkatee te Baye Fall gis nañ ne bu xasee ba tàmbalee tudd yàlla daanaka ñëpp dañuy tàggu seen sago loolu tamit bëggoon nañ Baye Fall am lu mu ci leeralal tuuti rek. Mhm. ndax dama tàmbali maa ngi wax ne lu jógee ci xol ci xol lay ci xol. Mhm. pas-pas bi nga àndal. ba booy tudd yàlla. Mhm. ni nga muy dugg ci biir xolu nit ñi. loolu tamit xam naa dina naqaree wax nag waaye. waaw moom koy yàgg da nga may laaj fi mu toll loo xam ne lu <laughs> naqaree doon lu waaye fi mu toll nii comme li wax léegi rek lu jógee ci xol ci xol lay tàbbi. ndax tudd yàlla gi ñuy def. wala Cheikh Rafal bu ñu ko xasee bay def. moom Cheikh Rafal dong la ñuy gis. gisuñu leneen. des fois dinaa nekk ci ay jàng sikar ba pare nit ñëw di ma jox addee mu génn mu ne ay rafal ñëw naa ci jàng yi dala jox addee so eh, bàyyiwuma xel te booba ñaa ci baaxu mam si bañ naa ko mu tuddee samay gëmm du ma xool boo dee xool samay image yu bari samay yàlla te noonu moo ko noonu noonu moo ko def noonu ko def fépp du ma ci xel ndax man tur yàlla rek laay gis ndax dama ko bëgg mu ne ci xol bi daanaka su ma ko def ñuy daanu maa leen di jëkk daanu loolu xam naa ne ñi toog ci public bi moom xam naa mën nañ cee bañ a bàyyi xel waaye ñi ma nekkal tey ànd ak ñoom xam nañ ko sama jëm mm-hmm. bi waaw man su ma su ma xasee tàmbal rek man maa njëkk daanu man mm-hmm. <laughs> maa njëkk daanu ak soññee bi yooyu ah. léeg-léeg nga bàyyi leen fii def waaw <laughs> waaw <laughs> yu ah, ah, xam naa nag léegi tey jotaay bi mat ndax xam naa ne ñi ngi may wax ni ma mm-hmm. ñi ngi yëglu kon yan kàddu yu mujj la Baye Fall di soñu waat wala tàmbalee waat rek fi mu woon rek mm-hmm. santaat mbokk yi nga xamante ni mm-hmm. ñooy topp jotaay bi mm-hmm. ci seen bu mag boobu di Jazbou Mouride euh, bëgg nañ nag bala ngaa tëj nga yëkkati ñu beneen air boo xamante ni dañ ciy bànneexoo waatee waaw buñ toogee buñ sañoon duñu wax dañuy bàyyi rek nga waaye comme yi mënta ñàkk léeg-léeg ñu koy dugalaale ci biir da da ci am solo tamit xamaat bu baax turu yàlla wi tamit waaw xam nga noonu wax dëgg yàlla suñu borom dafa dogal mag ñi rek moom moom la ñuy roy ci turu yàlla sa borom yàlla yokk ay daram te xam ne moom maanaam ku fonk tur yàlla te da ko bëgg daanaa ko def heure bu ma koy def di ko tab di ko rey foo ko fu ma saan fekk jinjaan lay def ci poos yi ak i socc maa jox lu bari waaye di santaat bu baax a baax rek waa gis murid di sant mbokki taalibe yi ma àndal te nekk ak ñoom soppe yi nga xamante ne tamit soppe yi waaw di ziare soppe yi mhm. mhm. ñun xam ak ñun xamul lan la leen Baye Fall di waajal waaw moo waaw ñoo ngi waaj nag ci màggal gi ci kàttanu Cheikh Fall am na lu ñuy wàcc waaye ñaan nañ ci doole maam Cheikh Fall barke suñu muru mbenda mhm. màggal gi incha allah mhm. am na lu ñuy xam naa dina génn dégam sab na borom mhm. barke Cheikh Ibrahima Fall ñu xaar ko daal waaw waaw di santaat ñëpp nag di leen sant bu baax a baax jéego yi jafe na ñun ñu leen amal ak cant di siyaare sëriñ Mamoun Ndaw bu baax a baax di ñaan sëriñ Cheikh Fall jëmb mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal sëriñ Mountakha ak sëriñ Amdi Modou Mbène nag jabatu Cheikh Rafal gépp di ko ñaanal sëriñ Abdou Khadi barki maam Cheikh Rafal kon mu waaw boo xam ne daal dañ ah. koy àndandoo rek mu nekk ñu tëjee ko jotaay bi rek ah kon waaw barki Cheikh Rafal fa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la la ilaha illallah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 bamba la ilaha illallah sayyidina rasulullah la ilaha illallah sayyidina rasulullah la ilaha illallah Serigne Bamba ku fatu yaa fay njëkk a teew lu julle ngay teew nuy ram nga tontu laayam la ilaha illallah faal Sëriñ Bamba fatu yaa fay njëkka teer nuy julle ngay teer nuy ram nga tontu laayam la ilaha illallah faal rasul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 على سيدنا رسول الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله jërë ngeen jëf mbokk yi mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon topp ci seen seen bu mag boobu di Jazboul Mouride Baye Fall kenn a ngi nii mbokk taalibe yëpp yaakaar naa seen xol sedd na seen xelit dal na ci moom ñu ngi koy ñaanal bu baax suñ borom gën ko yokk ci barkeb turu yàlla wi ba ah, ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ñu ànd ko mottali ko barke maam Serigne Fall wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax ci jàppandal gi ak oyof gi nga xamante may ko ci jëmam ji mhm. kon mbokk yi baa ngi noonu émission Zikroulah ngeen xaar ko ci euh, jeudi bu ci site bi euh, kon ñu dem ak sëñ Tuubaa leen ak sëñ Tuubaa li si daaw ti bi ma baax amiin amiin amiin bi ma baax rabbi kullu sun allah waxeen sama baax subhanahu amiin barke la ilaha illallah